nekk nit koo xamante ne yàlla may na la nga am xel mën a liggéey mën li ngay def am xelu investir nga ñëw Sénégal nekk Europe di dang-dangi di liggéey war a ñëw Sénégal pour investir ñu lay liggéey di la liggéey ba nga dee ñu daal di def seen tànt bu rëy tegal la chaise yu bari jëndal la nag wu rëy di la dëj teg ca nag ah nekk toog ca dëj ba nag di wax naka sudul noonu Sénégal loolu daf fi bëri bàyyi leen nit ñi ngeen di galgal ak di padd seeni tànk te bàyyi leen ñu liggéey am nañu ambition bëgg nañu liggéey bëgg nañu investir bëgg nañu def lépp mais xeetu coxor tànge gi am tax na ba kenn bëggatul sax def dara lépp looy def danga koy nëbb booy def dara da nga koy nëbb ndax nee naa la boo nëbbatuwul lu ñu xes ba yëg yàq ko loo siiwal du yegg dañ koy yàq dam say tànk ndax xeetu coxor tànge gi am léegi Sénégal waa Europe a ngi Europe nekk di liggéey yor seen xaalis bëgg a investir waaye bu ñu demee bay investir sax dañuy dem ba dañ koy bàyyiwaat parce que dañ lay liggéeya liggéeya liggéey commencé si seen biir kër ba rey la ba nga dee nag gi xaar koor bay ñëw ku nekk sol mbub mu rëy garaam mbub yu rëy tàntal la nag tànt bu rëy toog di la dëj teg ci nag toog fa rek di wax waxu jàmbur rek di nettali rek ak di wax waxu jàmbur bàyyi leen nit ñi ngeen di rey ba pare di leen dëj di leen jaale bàyyi leen nit ñi ñu am seen ambition war ko def du ngeen leen bàyyi ñu koy def ndax soxor ak iñaan soxor ak iñaan nag jëriñul dara du dul tardé la sa di bon ngay bon di dem di amee guwaat ah te du la jëriñ dara bàyyi leen nit ñi ngeen di soxore nit day war a dem sax ah ngeen ne du fi demee ah di leen liggéey ak di leen turum tuj Sénégal ban Sénégal lañ nekk bu ñu jugee naan Sénégal pays de la teranga Sénégal pays de la lekkante pays de la teranga avant la woon mais léegi Sénégal pays de la lekkante dañuy dañ lay tiim di la lekk ba pare di la naan la massa bàyyi leen soxor ak iñaan ak iñañati te nee naa la fii loo fi def balaa ngay dee yàlla wan la ko tey sama video ci loolu la doon wax bàyyi leen soxor ak iñaan ngir yàlla li laay war a sóol I love you so